ak serigne khadi Jaxate ak serigne Galas falu Galas sel ak ñi ci andal ñep ay atangi ni sasu wéru safar tero ñu dugg ci Sénégal gep dem ba Casamance ba fouta ba walo kadior Njaamur salu mbay wuñ fenn ba dugg ci bir njabatu Cheikhul Khadim tay ñu ñew fi ci Cheikh Mouhamadou Amine Bara ibnu Xaadimu Rasul ngeen ñëw ci ati bii di Touba Guy Mbind nga xam ni sëriñ Bara mi ngi ko sancoon 1913 ci ndigalu waajuram Cheikh Mouhamadou Cheikhul Khadim bi mu ko yebaloo sànnoo ci kër ndijaayam mu nekk fab diir ba taawam di Cheikh Mouhamadou Bara Mouhamadou Hafiz foofu la gënee àddina ci li ko sëriñ bi woowaate mu ñëw fii sañc Touba Guy Mbind ci 1913 Guy Mbind nag mi ngi nekk ci pencu penkub Touba penkub Touba mooy li tàmbali ci buntu bi jëm penku ba kere ngay àgg ndindi loolu mooy Guy Mbind maanaam ndaamaatu ak daaru Rahman ak nit ñi Cheikh Maodo Fadil ak Xusnul euh, Maab te muy wax Tindodi ak surra ñëw seq Guy Mbind li waral baatu Guy Mbind bi wax nañ leen ko cheikhul xadim da daan xëy di ñëw fii ci guy gi guy gi mi ngi nekkoon fii ci kër ku ñu wax Mor Samb bi ñu lotisee ci gundu këram la nekkoon foofu sëñ Touba bi mu nekkee ci jumaa ji sëñ Touba léeg-léeg dafa daan ñëw ab yoor yoor di fa bind lenn ci xasida yi wala alxuraanul karim waaye lu man de xew sëriñ bi daan ñëw foofu doon bindee foofu moo tax daan ko tuddee guy gi nga xam ni fi la sëriñ bi daan binde moo waral turu guy mbind Cheikh mooy ñaareelu ñetteelu doomu cheikhul xadim mook cheikh Amadou Moustapha ñoo bokk waajuru góor bokk waajuru jigéen ci cheikhul xadim ak soxna Aminata Lo mi ngi gën a àddina fii ci Touba 1891 et nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rakkaati gàmmo tey bu ñu noon kenn ku nekk fa nga ganee àddina foofu ngay ñibbi sëñ Ba rek mooy des Touba kon su ngeen ñëwee indi karawaan bi fii. jox ngeen ko borom fofu nga xamni fa la Cheikhul Khadim teud fa la Cheikh ibnu Khadim Rasul ganee adina sëriñ Touba la. ginnaaw Touba la. kon njëriñ rek ciy kon rek ngi ñaan Touba. ngi ñaan ci sëriñ Touba. li ñu tambalé na ni sun borom agalé yengutugi ak dal lépp ne ko sunu borom def aw yiw nangul nu ko defal nu ko it nag addiyee Serigne Touba yàlla nañ ko teewaat déwén te yàlla nangu liggéey bi may nu ak wér ban fekkee ko ay ati at ci barke Serigne Touba yàggal sunu kilifa lool. yàggal fi nag sunu kilifa yi lool. muy sëñ Ahmadou Muxtaar. ak sëñ Muntaxa. ak sëñ Muntaxa. ak ña ca topp ñëpp. ak ña ca topp ñëpp. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. yàlla nañu ko defaat déwén.